mbokk yi gis ngeen combat bi dox ci diggante Laurent Ndiago ak xale bi di plateau <laughs> ay waay bis bi xaar ñaari xale yaa ngi nii dis-moi qu'est-ce loolu xale bi phénomène bi moo ko génnee muy xale bi nga xamante ni mooy Laurent Ndiago waaye mu ngi xale bi nga xamante ni ndeysaan mooy l'espagnol bi Tréviño dinero noo tara bi xaat noo diileeroo ñoom ñaar ku ci nekk indi na li nga xamante ni mooy slogan muy plateau muy Laurent Ndiago ñoom ñaar doon combat boo xamante ni vraiment combat bi tax na ñu bari di ko xaar mu nekk combat boo xamante ni waa rent DKR production ñoo ko organisé mbokk yi ñu ngi fii ci fi nga xamante ni mooy arène nationale combat bi nag bokkoon na ci combat bi nga xamante ni ñëpp ko doon xaar plateau. Ndeysaan mu ngi noonu Ndeysaan moo jugee fi nga xamante ni mooy rëbës moo jugee fi nga xamante ni mooy plateau moom xale bi di plateau Ndeysaan Laurent a ngi noonu ñoom ñaar dañoo bëgg a bokk fi ñuy taxaw ñaari xale lañ Ndeysaan Laurent nee na fii laay taxaw plateau nee na fii laay taxaw arbitre bi dee na leen coup bi moo leen boole waaye coup sifflet boobu moo leen di tàqale Ndeysaan ñoom ñaar la gis ngeen ñu ngi noonu Ndeysaan Marley ngi noonu dugg si le grand champion soox tànk bi te gaañu wut tey <laughs> làmb lépp tegtal la Ndeysaan ñu ngi noonu plateau ak ak ak Laurent Ndiago plateau moo leen won ginnaaw moo ngem moo ngemb Lagos bi Laurent moom ngeen jàkkaar lool boo plateau cokkaas na ndaysaan cokkaas na ñoom ñaar xale yi ku ci nekk bii mooy sa premier combat ci làmb ji ndaysaan sa premier combat arène bii mooy seen ouverture ñoom ñaar te ku ci nekk war naa mën a ndam waaye ku ci nekk mun naa ubbee defet te ñoom ñaar faw ku ci nekk ubbee ndam kenn ku ubbee defet kon actuellement dox ci diggante Laurent ak plateau ñoom ñaar ñaari ndam dugg si nañ kat mooy génneeg ndam kat mooy génneeg defet ñoom ñaare ngi noonu Laurent taxawaay bi baax na pied droit la jiital ndeysaan plateau taxawaay bi baax na tànk càmmoñ la jiital cokkaas na Laurent dafa bëgg a cokkaas moytul plateau daa mën a bëre Laurent ki ngay bëreel est-ce xam nga ko. Plateau daa mën a bëre Otoul de Otoul de cokaas na dóor na ko ndeysaan Laurent li mu baaxul ndànk sóoraaleel xale bi ñoom ñaar combat bi du yomb ñaari xale lañ yoo xamante ni ku ci nekk mu naawoon boppam cokaas na ndeysaan tribune bi jóg nañ ndeysaan tribune bi jóg nañ Ndeysaan turbine bi jóg nañ Ndeysaan gis naa ne ko réel <laughs> cey lamb Ndeysaan turbine bi jóg nañ Ndeysaan ñoom ñaari xale yaa ngi noonu di laatoo ba tey door na daw na jëli ko dooraat na kuy mu ngi dal kuy mu ngi dal Laurent mu ngi door plateau mais plateau da koo bëgg jàpp. gis nga plateau Laurent Cokkaas saat na Laurent ma ngay Cokkaas ma ngay déplacé wu di Cokkaas. Laurent plateau wuli. Laurent plateau ñu ngi bëre. ndeysaan wuli ñu ah. moom nga jàkkaarloo moo la féetee ko wuli. combat bi loo daan ko. jël ko daan ko. Laurent ko. wuli mi war a bëri ba daan na ko. Laurent Ndiago Laurent Ndiago bi daan na plateau Laurent daan na plateau xoolal ma lii Adama Kaye Adama Kaye